<laughs> MD arrêté leen nooyi. Ah. waaw waaw. <laughs> bu kenn nooyeeti Mbacke baal la. ndeysaan. ah Kaka bu kenn ah, nooyeeti di ziar bu baax soxna si. jërëjëf jërëjëf Mbacke. allo. allo yow la ñuy déglu ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu sëñ Gallas ñu ngi lay déglu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, maa ngi nuyu sama xarit boobu euh, si Fall Ndiaga. ñoo ngi lay fay Mbacke ñoo ngi lay fay bu baax. nekk sama wëlëre nekk sama xarit lool. wallaay Mbacke dëgg yàlla nu ngi teewlu bu baax seen émission bi nu ngi leen nuyu bu baax yow tamit soxna si. jërëjëf ndax yàgg nañ naa suivre ci euh, seen télé bi ngi def liggéey bu rafet. dëgg nag di nuyu bu baax oustaz ndax oustaz moom sama soppe la lool. dama koy faral di déglu ci seen grand plateau yi mu am ay euh, mu am ay waxtaan yu am solo yu muy def ci diine te loolu. Mm-hmm. yaakaar naa ne plateau yu mel nii faw ku diine taxaw di ci wax loolu moom da ciy baax. Mm-hmm. waaye tey du ma doon woote rek ngir siyaare leen ak eh, jaajëfal leen ci liggéey bu rafet bi ngeen def. ndax fàttali li ñun doonga ko am émission. waaw waaw sëriñ Touba woote ñun ñun ñun képp ko am ci weeru weer sa weeru maam nga dugg ci. Ah. bu fi am Abdou Karim borom Makarim Abdou Karim. Mbacke musuma fi waaye waaye soxna si thème bi dafa ma ñor lool ndax. wallaay dëgg la da koy wax uh-huh. wallaay da koy wax. sunu kilifa sunu sëriñ Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq. déggal jëf Mbacke. noo koy siyaare bu baax di feddali sunu njëbbal ci moom. ndeysaan Mbacke di siyaare waale mboolem kilifa diine yi ak euh, sëñ euh, sëñ Mahamadul Bachir. moom sëñ mu tax euh, sëñ mu taxaa moom sëñ Mahamadul Bachir. Mm-hmm. ndax li ngeen di wax ni ci télé bi dafa lool te ñu yàgg ji ci dox. Mm-hmm. maanaam réew mi ak jullit yi sax ak ñi ma ko sañ a wax. Euh, dafa mel ne dañuy juum ci bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy ay wayjur ndax lii yëpp li ko waral mooy tànn wayjur mhm. doom boo ko bëggee am da koy tànnal wayjur mhm. muy góor di jigéen mhm. ah, damay faral di waxtaan sama benn xarit ma ne ko réew mi dañ ko war a refondé dañu war a yaraat yar moo manqué ci réew mi te fii ak nag yaratuñu diine amatu ci doxin yéeg ak xalaat yéeg maanaam ñu jël diine def ko second plan. Hmm. maanaam di doxe doxi du jamono saa su ne day indi ay njuumte. Mm-hmm. waaw ba tax na nun suñu kilifa si Abdul Karim Mbàkke borom Makaarim al-Axlaaq ci loolu lay appuyer euh, maanaam ko ci diine. Hmm. woote la maam woote woon euh, la bàyyam woote woon muy sëñ Fallu. ndeysaan hmm. ñun nag ci tànk yi xam ne ñoo maase ak ñoom ñu am fu mu teg seen tànk parce que. yaakaar naa ne bu ñu bàyyee nii rek lu bari dana yàqu. léegi nag diggante goro yeeg ak goro yu mag yi ak goro yu ndaw yi. Mhm. yooyu yëpp yaakaar naa ne problème diine am na ci waaye problème mu yar am na ci. Mhm. te boo delloo ci diine diine dana la yar. Mhm. comme nun xamuñu lu dul diine. te réew mi xale yi dañoo am beneen gis-gis mooy gis-gisu dox sa jamono. ak nekk ci sa jamono ndax man damaa jàpp ne ñaari du benn dox sa jamono ak nekk sa jamono du benn dox sa jamono baaxut mm-hmm. moom la xale yu bari di def mooy dem mm-hmm. li dem ay soirée dem ay kii gëm leneen waaye waaye nag nekk ci sa jamono nag mooy nekk ca la nga war a nekk gëm sa bopp xam yaay kan xam fi nga jëm xam fa nga jóge bu mm-hmm. fekkee ne yooyu nag dañ ko réere day daal di compliqué ndax ñii yar sax dañu am problème Uh-huh. waaw bokk na ci télé yi bokk na ci internet bi bokk na ci yeneen gis-gis yu bees ak yeneen xalaat yu bees yoo xam ne dañu ko imposé uh-huh. loolu nag ñun ñu ngi ciy jéem rek ci njàngalum Serigne Touba ak uh-huh. euh, yaruñ Serigne Touba xëy na peut-être sunu kàddu mënta mënta yegg fu sori waaye noo ngi jéem ci daayira yi di jéem ci ci ci ci gàmmu yi màggal yi di ci waar kéem kàttan liñ mën rek Hmm. waaye noo ngi rafet lu baax euh, émission bi. jërëjëf Mbacke di leen siyaare bu baax a baax di nuyu sama xarit bu baax. dégg nañu loolu moom kenn la moom dama koy gërëm di ko sant. ci euh, maanaam taxawaayam depuis bu nekk Walfadjri ba léegi. Mm-hmm. muy muy muy muy muy muy muy waar nit ñi ak ak di tegaat nit ñi ak di xëccaat jeunesse bi ci li mm-hmm. baax. Mm-hmm. ndax doomu aadama yi bu ñu manqué repère. manqué am ku ñuy xool rek. loolu mi ngi tàmbale ci jamono yonent sa salaam mm. muy dox ba néeg ni mm. bu fekkee ne dem nañ ba amatuñu repère rek mm. dañuy daal di réer te nag li indi réeraange bi mooy bëgg dooni tubaab te fàtte li nga doon léegi da ngay tagga tàmbe loolu nag moonu loolu nag moonu xaw a daal ci ci ñi ko ñemee wax mm-hmm. waaye noo ngi ñaan yàlla di ñaan ci darajee yonent bi sa salaam ak barkeb sëñ Tuubaa ak sëñ Fallu mm-hmm. sunu borom gindiwaat sunu peuple bi parce que euh, ñun ñi nga xam ne ñooy sëriñ si war nañoo nekk ay régulateur maanaam lu lu lu manqué ñu dolli ko. <laughs> waaye lu xaw ëpp tak ñu wàññiwaat ko. bu ko defee mhm. eh, société bi mën a nekk li nga xam ne moom la yàlla bëgg. ndeysaan donc goro yi mu muñal goro yu mag yi nañu mënal yu ndaw yi waaye goro yu ndaw it nañu nañu respecté nag. goro yu mhm. mag yi parce que. Mhm. mënoo dikk ci kër see sa sa borom kër wala nga am fa doom eh, bëgg bëgg salfaañee. bëgg doxee nu mu la neexee. loolu te genn ku ne na fàttaliku ne li nga leble rek moom lañ lay fa ëllëg mm-hmm. donc bari na loo xam ne ay jafe-jafe la ci réew mi nañu xoolaat ca sëy ya ca biir kër ya mm-hmm. moo tax ustaas ñuy toog ak imaam yi ak nun sëriñ si war na noo waarewaat waxaat ak nit ñi ci wàllum sëy parce que sëy mooy problème ci réewum sëy mm-hmm. parce que sëy ci nit ñëpp maanaam ci biir kër gi lañ génnee kër googu nag lan moo fa am baa diine nga fa baa yara nga fa baa joma nga fa baa suturama nga fa baa kersama nga fa yooyu bu fekkee ne amatul mm. te te te wax dëgg yàlla maanaam xoolatuñ ko mm-hmm. day daal di indi jafe-jafe loolu nag moo jur lii yëpp moo moo jur jafe-jafe maanaam ci réew mi euh, jafe-jafe wu jikko ndax jikko moom la yàlla taggee lay jikko boobu nag buñ ñu demee ba nga xam ne nekkatul ci nit ki muy jikko ju baax yàgg bàyyi may yéen a yem waaw bu fekkee Sénégal nag lu waay neex nit def lu waay neex nit wax hmm. euh, te kenn waxatul loolu day nekk problème hmm. kon maa ngi yemale foofu sama kàddu damay bañ téye ligne bi waaye maa ngi leen di gërëm bu baax doyu a ñu de Mbàkke <laughs> ah, euh, ñu ngi leen di ñaanal mu yàggal leen fi leen rajo bi seen télé bi suñu yëkkati ko ba ca kaw. Euh, màggal gii nu jëm nag ñuy ñaan mboolem li fi nga xam ne ne mooy jafe-jafe réew mi suñu borom saafara ko. amiin rawatina muy feebar bii di corona. amiin euh, yàlla jëlee ko fi. amiin ñëpp am jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu jërë ngeen jëf. amiin ndeysaan Mbacke Ba ndeysaan mën nañu ko fee jaar tëj dañu ah, xanaa rek euh, moom kay doy na doy na doy na sëkk. <laughs> di di di di kenn dëgg yàlla ba taaw suñu Abdou Karim Mbacke nga xam ne kooku sama féete bopp la